ne dañuy rey Balla. waaw gisaguñu ñu. waaw man de waxuma dama koy rey. mais dama ne waa waaw dëgg maanaam dañ koy rey mooy xeex duma ko mu giri bëddoo. dama ne la dama ne la maa damaa nekk xale jàng bëri fi ma ko war a jàngee jàng xeex fi ma war a jàngee dugg seen gox ñoom. Hmm. géej waay. marqué fa sama empreinte marqué fa sama empreinte mën nañu wax de booy ñaa man dama gisee sax géej waay def le fait que ñoom booy ñaa dañoo war a jàpp ne boo ñaar def na gaye nañ ko ci recours car appui yi nga xam ne ñu mën cee jàppandu mais man mbëru géejaay ma daan maa la may loxo hmm? hmm? limal mbëru yaay kay yaay limbal sa bopp mbëru géejaay ma daan da ngaa tëdd ma may la loxo nga jóg ma ñibbi sama victoire doo limb kan ak kan mais pas ma laxasu ci le boo ñaar xam après combat deux semaines nga ciy laxasu naan non arrêté nañ ko géejawaay non non amul ku ma daan géejawaay boo ñaar amul ku ko daan géejawaay tëral ko hmm. te ko mës a am ñoom mais laa naa la ci bëri bi nga ne yaa ko dàq bëri yaa ngi dégg li ma la waaw géejewaay duñu a am ku daan boo ñaa tëral ko booy li nga wax doy na waar de duñ ko mës a am booyaw ñu jàpp loolu Balla Gaye ngi géejewaay de tamat ku ma fa daan nag maa la tiim may la loxo nga ma encourage dara Babacar moom daf ni image yaa ngi moom daf ni ni mënee ci ancien Goulouwaye nii la mën a ci génération. non yooyu waxu ju na lu ku mu dajal moo la man non yooyu na dégg noonu lay demee aussi si doom bi xam nga sama doom moom tamit xam nga moom sagu suul mooy nekk suñu kaw mais loolu waxin la waxin la mooy Sa Thiès papaam champion la man ak moom bëri nañu gis nga lu xew. ay papa si taa dégg ma rek moo tax man la moom ñu ko daan ñu ko daan ci làmb Balla limal Issa Pouye papaam champion maa ngi nuyu Issa Pouye bu baax nekkul manque de respect nag damay wax damay expliquer rek quoi ñoo suñu ay papa lañu quoi maa ngi leen expliquer damay expliquer rek quoi Issa Pouye papaam du champion Bombardier mi ko duma papaam du champion Eumeu Sène mi ko duma dóor ko onze coups papaam du champion comprendre onze coups la ko ma dóor waaw déglu ma rek waaw déglu ma rek déglu ma rek déglu ma rek déglu ma expliquer rek ñun ñu ngi fi télé yaa ngi fi bi nga guerre de dama ne la ñu ko def loolu seen papa du champion kon bu toogee naa ay papa champion yow amul solo ñun nag comme ni ma la wax rek du ñu dépasser benn papa yi jàmbur parce que Double Less suñu papa la mais moom laay waxal moom moom mi wax jëmale ma laay wax delloo mais xeex bi dinaa si ñëw waaw bëre bi yaa ne yaa ko ko xeex bi yàgg baax dama ne la danga maa laaj ma la nga ni moo dàq bëre moo dàq xeex ma ni la dàqu maa bëre dàqu maa xeex ëpp ma doole gënu bëgg li may def ëpp la fit itam nu may ëppee fi nu ma dëkk Pikine man wax naa laa judd xam fi wax naa déedéet wax ma ko laaj ko gars yi taxaw <laughs> mystique mystique maa mooy loolu xam nga ku am combat da ngay dem uh-huh. mbokk am nañ mystique bu tuuti nag mais ñu koy sant yàlla am nañ lu tuuti rek lu ndaw la ñu koy sant yàlla mais combat pass gis nga li ci xaw lu ca ci biir combat gis nga ay élément Balla yoo xamante ni ay sëriñu Balla gis nga leen ci laamu ji waaw wala déet bu amul rek nee ma amul ay ñi kaguloo ñi jël ay affaire yëpp ku ne wér mais ah ñu sot ñoom ñëpp jël seen bagage dañ laa sot waaw ah, ma rek mais sot bi moom dafa feeñ ah yow mbokk jàppale say mbokk jàppale ah, sot bi dafa feeñ ni mu feeñee mooy dañoo gis ay sëriñam moom nekk ci enceinte bi. cumukaay bi moo ñëw quoi. waaw non déglu ma bi ñëw na. moo tax ma ni la ñoom chaque jour bu la neexee mënoon def loolu neex mais du ñu am mbër bu daan boo ñaa tëral ko. comme bés booba yow jëlewoo ca rëccoo ca. est que boo bu dee ko duma moom ba temps bi jeex mënoo duma dara. kan la lag waaw. Hmm. lag da nga koo duma. non waxuma kooku bëgguma dugg foofu jabaar mais la ñoom tamit yóbbu ma dara de dañoo bëre ba taa bi jeex ma duma leen beneen rek ma duma leen yóbbu leen ko de ndam hmm. mooy daan boo ñaa humilier ko ci stade bi taman seen mbër bu ma daan maa la yëkkati may la loxo image yaa ngi nii mën nga wax tey bu combat bi taxawaatoon tey côté misib bi lañ indi leen indiwaatoon tey mbaa du nekkaat problème sa ah, lu ñuul xam ni ñu koy waxee ku gis nan bu ndamit lay sa maam lu ñuul daaw jeex na léegi ñun daw nañ wuti rek. Ah. bon am nañ ay mbokk mais doole nañ nag sant yàlla bu baax. kon tey avance mais Lamine da nga war a ñëw fii parce que yow. kon tey dafa am loo xam da nga koo wax. kon tey avance kon tey avance su Balla Gaye lay wax man naa gars yi benn émission lañ parce que yow dafa am loo xamante ni yaa ngi fekkee da wax ko leer ma dégg. waaw noonu la demee booy ñaa waaw booy ñaa kon avance Balla Gaye bu français woon sol bu ñëwoon tey nga non non ñun bañ waxee keroog ñun bañ waxee keroog waxal naa leen le fait que ñu ko indi dafay metti loolu laa wax ci émission bi daa ngi rek ñuy wax fu nga nekk rek ñu ñëw jël si ko wala ñu yónnee la mhm. wala nga yónnee ñu ko mhm. loolu mooy gën a gaa xam nga mhm. ñu yónnee ñu ko waaw mais ak si Guédiawaye Pikine dafa mel dafa tàng waaw dafa mës tàng parce que moom dafa dugg suñu daan suñu ay mag suñu ay suñu mag daan na ko mais aussi daan na ay mag ak suñu ay papa léegi mu bëgg a wàcc ci yow waaw incha allah loolu moom xam nga nañ bàyyi ba yàlla sotti rek mais Balla dégg combat bi taxawul dégg naa ab jàppam doy na waar de dégg naa loxo bu duggee ci ngem buy bëri yow ba ah, jàpp loolu mais man tamit jàpp ka laa de ah. man moom action sur action yéen ñaar su waree bëri nii jàppante waaw bu ñu wëree moom dina neex mën na yoo bëri ba état bi jóg taxaw waaw parce que dañuy yoo bokk côté boobu moom xam nga lu teg nga teg leneen lu teg nga teg leneen amul benn problème waaw dañuy wure rek moom xam na xam na wure bëri ka la dañuy wure rek teg tegi hmm. waaw Gris Bordeaux dégg ko ci suba mu ne Balla daa bëgg lu yomb mm. moo tax muy wër a gaaj booy ñaar mm. mais ñoom ñaar mooy combat bi mm. moom yaak moom ne na lu yomb lay wër moo tax mu lay laaj waaye ñoom ñaar war a bëri moo giri gi ne na waaw jiri loolu boo xam ne rek maa ngi koy nuyu loolu xalaatam la rek amul benn problème loolu waxam waxu boppam la waaw hmm. ah, parce que moom ah, kañ ça veut dire que jàpp ne ah, giri suñu grand yooyu giri non ay xaw la dóor as giri bëre fee Balla ngay xeex bu metti non Gris bu doon dem seen rek rang troisième âge bàyyi li ngay wax. waaye yow. sama gars waaw taa yooyu. taa yooyu taa yooyu. Fadel ma booy ña. ma ne moom gis ci affaire du sec waaw li koy ñaanal daal mënuma xale ko àjjana gis nañ fa. mais tey pourtant diggante Gris bu ñu ko suñu voilà waaw Gris troisième âge moom xam na li ma wax. troisième âge waaw man gis naa man gis naa Gris man. nga ko gis. dama ne gis naa Girima. man ah, da nga koo gis bu yàggul. non gis naa ko ci bi. enterrement ba la dëj ba waa gis naa ko moo tax man la ma giri troisième at. ko gisee actuellement man maa kon pare na ci làmb. ah bu pareegul de waa yomb de lu yomb de la la jàppee nooy neex. Eh, waaw loolu la amul problème. nooy neex de la la jàppee amul benn loolu. sama manager moom am na wax bu mu wax. Hmm. nee na da ngeen a ragal moom ñi mu tafaatin kat moom burxaan burxaan ñemul tafaatin wala booy même yow wuulu wula ak tafaatin do ko wax de vidéo yaa dafa ne moom waaw ñemewul tafaatin waaw waaw la yow ñeme nga tafaatin mbër la champion la ñeme nga ko ragal moom it koy wër de ñemewu koo laal de non at yëpp yaa ngi koy wër di ko war wagaaj man wër ma kenn hmm. man bëgg naa nag ci bu rek champion yëpp parce que loolu mooy carrière bu baax ba bu rek champion yëpp hmm. yàlla xam na ne bëgg naa. boo amul Balla Gaye boo am baax na. boo amul Balla boo amee Tapha Tine ku ma am baax loolu moo jeexal waa ji ku ma am laa ma bëgg suñu combat maa yow promoteur dox damay bëre yow li nga wax ci Gris lu tax sànni woo xeer Tafatine comme Gris ne nga troisième manche parce que sànni ma xeer sànni ah sànni wu la wax booy ku ko ci jëlee nappaaje non non Tafa nappaaje la génne nga dem sànni la dama wax ci moom ah doo wax ak ma wax ci moom a sibul mooy lan maanaam day nelaw non dama ko jàppee non du ngaaga sax sànni wala ah, ah, yaa sibul yow nga ne la comme moom waxuma comme moom waxul ci comme moom waxul ci man. non li wax kay leer na nappaaje. xam man ku xam Boy Niang xam ni dëgg-dëgg damay jox mbër yëpp respect mais képp koo xam ne génn nga sànni ma xeer dépassé ma samay borne ma wax la sa ma wax na la ko ah, la Boy Niang sama fils la. mais daa da ngaa ragal ma ko xaar mu may ñu. ma kenn. ah Boy Niang de moo ko war a boole ak palmarès la. waaw waaw mun na mun na mun na bañ doon xam lu tax. Hmm. parce que moom ñu mu bëree bëriwul maa ñoom. dëgg la moom bëri naa Yékini. Hmm. Yékini ñu mu bëreel Balla Gaye bëriwul ak hmm. parce que moo ko njëkk ci làmb. comprendre moo ma njëkk ci laam ñu ma bëree bëree guma ak wala ñoo xam ne mënu maa bëree parce que bàyyi nañu sax comprendre nga loolu foofu palmarès mënuñu boole li ñuy boole déglu ma li ñuy boole làmb nit ñi bëgg suñu combat mën nañu boole li ñuy boole mooy làmb garab la ci kaw fa lay fekkente li ñuy boole mooy dugg naa këram te dama faa yàgg teg fa sama tànk ne doo waaw am lu ma fa def bu baax nag buñ doon lim fi jógee de am lu ma fa def bu baax

ak Balla Gaye war nañ ko mën a dox mm. mu jugee xam nga li mu jugee xam nga ko a fay noonu la quoi làmb noonu lay doxee mm-hmm. mais ñu làmb lañ fi nekkal moom wax na la ko mm-hmm. nee na làmb dundal na dafa war dundal làmb mm-hmm. mais ñu ñëpp ñoo war a dundal làmb jàpp ci pour làmb avancé jàpp ci pour cachet yi gars yi bëre comme li ma ko waxoon li ma doon plaider noonu laay plaider dama bëgg mbër yëpp ñu bëre suñu génération Sa Thiès Garga Mbossé Malick Niang keneen ak keneen ñu bëre parce que loolu mooy yoon gur gi am combat Malick Niang moom nga non bàyyi yaa ngi dégg ku nekk xool ñooñu am combat bëre comprendre nga loolu moo naaj lamb dafa war a dox quoi doonu la demee léegi nag euh, am na loo xam ne ni mënuñu la ko bañ a laaj parce que Pikine nga dëkk Ama Baldé jël na combat royal mook Modou Lo loolu loo ci gis waaw maa may ñëw foofu maa ngi nuyu sama mag ëmma waaw ñu ngi koy ñaanal mu ñëwaat carrément di wax ne champion la lamb daanu ci la bokk moom tafaatin dégg naa combat la nag déglu ma ñëw la wax ni lamb la champion la lamb daanu ci la bokk amul champion bu mu daanul ngi dégg di ko wax mu génn Pikine bëgg ko gars bëgg nañ ko duñ mës a découragé wu si grand la mu jàpp bu dëgër xam ne làmb la comme naan nga Modou mi ko daan am na fi defet keneen ak keneen xam nga dafa ñu koy encouragé di ko dooleel di ko wax mu ñëwaat mu génn ci gars mu bokk xam ne ci la bokk comme naan nga uh-huh. ah aussi comme ni nga ko waxee am na combat ñu ngi koy ñaanal ndam en tant que Pikinois uh-huh. waaw en tant que Pikinois ñu koy ñaanal ndam di ko jox combat am solo la mu liggéey gars yi ko jàppale nekk ci ginnaawam uh-huh. yow di ko jàppale incha allah incha allah boo ñaa bul jaale man loolu moo nekk sama communication croisement ba léegi mm-hmm. am ma benn xaar ma yàlla ak benn mbëru Pikine mm-hmm. ñoom sumay frère lañu kuñ ci gis dañ ci waxtaan ku ma soxla pour jàppale combat dama ciy jàpp dama takk lépp mm-hmm. même soo ci woowul sax dinañ ci jàpp en tant que Pikinois loolu moo naaj te loolu dañuy def bul jaaxle incha ci lépp lépp lépp waaw léegi kon loo loo fàtte woon te bëgg koo wax fàttewuma dara ma wax rek loolu moom tontu woo ko non koo du moo tontu maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xamante ni dañ déplacé wu ñëw fii ñu suñu doyen ci mbir bi ku ci mel ni xam nga Abou maa ngi koy nuyu ba ak démbale dëgg ñu suñu ay grand lañ bu len déplacé lii fii dembale fii moo ñu benn moo ñu moo ñu moo moo ñu dalal baa fii ba ñuy commencé waaw ba ñuy commencé maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ba ñu commencé ci école bi fii même Abou Ndour boobu mu ngi suñu làmb fi la ñu dalal baa yaa ngi dégg ñoo bind ci ñun da benn jeune nii Pikine booy ñaa xam nga nekk ay booy daw kon loolu hommage boobu il delloo ko ko suñu ay grand yu jox respect la bu leen déplacé loolu nii parce que dañ leen jox respect bu baax xam nga di a daanal télé yi affaire yoo xamul parce que léegi parce que gars yi waaw parce que léegi gars yi téléphone rek lañuy xam mi ngi mi ngi téléphone am laan nga ci yëpp ci téléphone lañ koy seetaanee noonu la demee. liiru jaar technologie moo toll noonu. liiru jaar lii lu mu wax. liiru kay li mu di toog na ca kanam patron bi mu ki mu jàpp moo dàq bëri ci mu Ndiaye. mu toog wut si ma boo ñaa ñëw du sama oto. moom lii waaw ak li muy wax yëpp. non ah. na fi kii arrêté ra booy ña ngaa géej a way. waaw na la ko waaw non ah. mu ñëw sama oto daw. kon bërëm nga fële la ma gisee daw lii tuur oto bi féer ko sax. waaye dafa <laughs> waaye yow liiru yaa def loolu yow wala naag bu ñëw booy ñaa liiru yow naka booy ñaa sa mbër la mbër sama mbër bi mbëru géew bi xam ne sotaale waaw waaw waaw wax noonu rek bi lay sol bu combat bi taxawee jeew lay fal la fal bu ko jëg suuf jox ko bagage yi ma ko waam bi gis na kuy métti jël na kuy métti na mais daan na eh, ah daan na rek ba xam ne wuli suñu gaay la mais ñu dañuy sotaale mbokk gi dañuy sotaale <laughs> yow lañ daan ah. lii du moo daan <laughs>